amis téléspectateurs TP TV asalaamaaleykum ñoo ngi leen di nuyu di leen uh, ziar élection présidentielle tey aussi tamit ñu ñëwaat fii ci coow bi nga xam ne dafi dafa commencé la mbir ñu cité woon ci ci turam euh, soo ko waxee rek mooy euh, docteur Ahmad Wade euh, soo mu nee ne coow li xam naa après dañ ci xuus rek mais on va essayer de introduire li nga xam ne tey mooy mooy coow loolu mooy coow li am fële na ca ca bunna ba ba ñu cité ci ci turam moo di tey ñu defaat benn entretien mais tamit dinañ waxtaan li nga xam ne tey peut-être kenn du ko wax dañu wax ba jóge fi te dañ ci le président de la république dalal coalition euh, président bi nga euh, élection présidentielle 2024 euh, donc gënaaw rek di docteur docteur Wad muy ki nga président parti politique les quatre V valeur vertu vision ak li nga voilà valeur vertu

gise bi daal nañ koy yege yool pour di mën a waxtaan ci suñu réew di mën a waxtaan ci suñu commune di ko mën a jëme kanam hmm. uh, docteur uh, jerejeuf uh, ci dalal bi ñu dalalat fi ni sa bërebu liggéey kay docteur xamna ni rek bala ñuy ki dañuy essayer rek tamper le débat sank ci introduction bi comme comme niñ ko waxé docteur euh ciowal souf suñ ko mëne mëne tuddé nonu dox digënté li nga xamé tay moy ñaag ak li nga xamné moy bunna ba ci walum 30 hectares yi nga xamné nek nañ diko diko wax docteur ñu dégg sa sa muy loo xam ne raar na euh, tey nan la ñu mën a lan yan rek nga tey explication nga ñu mën a jox ci ci wàll boobu noonu avant ñuy gën a xut ci waxtaan bi. waaw ma ma kontaan waa nuyu vraiment waa commune Tivaouane Peulh ñàgg yëpp ak euh, rawatina waa ñàgg wala waa Benob ndax te jii dafa am solo quand même ñu ñu dellu siwaat ci loolu bala ñoo wax 30 euh, hectares yi sax jaadu na ñu gën a leeral askan wi lu tax. vraiment docteur Wade di wax ci ci ci souci légui damay damay damay fatali touti rek euh, am na solo ñu fatali ko ni Lac hmm. euh, vraiment joyeux la nekkoon bo xamanteni dañ ko doon jaay ci Europe ak États-Unis ak fep touristes yi hmm. Lac Rose lañ leen doon jaay ay at am comme comme mu bare mu fi dugg ci tourisme hmm. ci artisanat ci antiquaire ak ci même vendeur d'art muy vraiment place boo xamante ni eh, lu ëpp ay junniy nit dañ fa doon dañ fa doon suturlu di fa hmm. liggéey boole ci loolu ñu fay exploiter sel sel boo xamante ni xam nañ ko presque dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest hmm. kon Lac Rose daal dafa doon dundal commune bi hmm. dafa doon vraiment yokk koom-koomu commune bi léegi nag ñaari at ci ginnaaw la ñu am vraiment loo xamante Euh, président Macky Sall def nako mo gouvernement moy jël ndox yi nga xamanteni ni ñoo jógee ci Tëngéej ak Tiaw ak euh, Tëngéej Kunun Kër Massar yépp ñu défar euh, canal indi ndox yoyu Lac Rose mu transformer en fait Lac Rose ak bassin de rétention mm-hmm. biñ ñu ko transformé bassin de rétention moy lan lac bi yaqku Rose bi demna mënatu mënatuñoo exploiter xorom ci loolu vraiment mu doon lo xamanteni lu metti la ci commune bi nga xamanteni mom mo doon principale source de revenu hmm. bi loolu amé nak ñun toguñu dañoo dañoo continuer di ci xalaat di ci liggéey andi fee expert ñu xol ndax lac bi mën na nekk rose wala dette ba expert yi confirmer ni lac bi fay nekk rose bu fekkente ni wañu nañu wañu nañu ndox loolu nekkaat bu benn benn yëf boo xamante ni dañ ci ñu ngi ciy liggéey tey jii boo fa demee di gis ba léegi ñu ngi ŋàcc ndox mi di ko wàññi di ko yóbbu géej pour lac bi couleur bi mën a ñëwaat euh, euh, xorom si aussi mën a ñëwaat waaye ñu am mbetteel vraiment loolu mooy mooy li ñu am mbetteel mooy le maire vraiment loolu mooy moom la ñuy wax mooy le maire de la commune de Tivaouane ñàgg Niaga Papi Diop mi ñuy wax nii moom mooy mooy maire bi moom également muni ñu état bi jox na fa 30 hectares 30 hectares sur le littoral maanaam bu la joxee 30 hectares sur le littoral lan ngay def domaine maritime bi di ko laal filawo yi di ko laal tey jii boo demee foofu di nga gis ni filawo yëpp fii biir samp nañ fa ay poto ndax boo xasee commencé yàq ah ku bëgg a yàq da yàq te fii lu loolu la bëgg a def détruire l' du lac rose hmm. ñun ñu ngi bëgg fexe ba lac bi amaat couleur rose mais couleur pour gëna bëna aussi il faut que environnement bi and ci lool ndax ñun depuis longtemps 2005 2006 nous avons planté 40 000 pieds de filao le littoral pour lan wàññi ngelaw li ñëw ci lac bi déplacement suuf également avancée de la mer. 2005 2006 40 000 pieds de fois te nañu. rafet nañu waaye tey jii trente hectares yooyu boo ko fa defee maanaam li ñuy liggéeyoon yëpp danga ko yàq. docteur trente hectares euh, nga cité euh, Tour cité bi nga xam ne tey mooy euh, Momar Soxna jóg mu nekk maire commune Tivaouane Peulh Niaga tey Lac Rose nekk ci biir commune Tivaouane Peulh Niaga docteur lan moo tax ngeen cité Tour carrément ngeen ni monsieur le maire ci yan base ngeen am. pour wax monsieur le moom moom moo ko wax moom moo ñëw ci dëkk bi ni am na trente hectares loolu kay duñu ko. duñu ko duñu ko loolu moom lu am la moom moo ko wax moo ko wax ba pare nag fexe nag di corrompre nit ñi vraiment loolu yëpp da koy def moom moom vraiment dafa wax ni ñàgg sax ak commune Tivaouane Peulh bi loolu yàgg na koo wax nit ñi da ngay ñëw rek jox leen xaalis pour tëj seen gémmiñ moo tax tey jii boo gisee ay nit di wax docteur Wade dafa am foofu mètre carré ça veut dire xamuñu kan mooy docteur Wade ndax man damay wax ni eh, dañoo bëgg sopp yi soppi xar kanamu commune Tivaouane Peulh Niaga moo tax ñu bëgg Lac delluwaat na mu nekkoon maanaam mu Rose mu amaat activité économique yi nga xamante ni moom lañ doon dundee ñun environnement bi aussi ñu préserver waaye 30 hectares yooyu bu ko Pape jëlee dañuy non seulement dañuy dugg ci littoral bi non seulement également dañuy détruire filao yi pour wane ni euh, kooku projet boppam ak wut xaalis kese intéressé mm-hmm. lii loolu moo tax nag. Nous, avons vraiment interpellé euh, le nouveau gouvernement le ministre du tourisme le ministre de l'environnement nous avons vraiment une visite rapide sur le lac pour nous xool nag naka la ñuy le ba lac Rose bi Rose intérêt intérêt Sénégal

Euh, ci site boobu noonu nan la si si yan ci yan critère la da nga yeew rek euh, dem ou bien da nga waxtaan ak ay nit pour pour dem foofu noonu. non non c'est très simple ñun du ñu du ñu euh, yëf yi doole. yëf yi doole xam nga lan la xalaat ak jéem a conscientiser les gens ñun dañu ni ñi nga xamante ni ñu ngi yëngu ci Lac Rose muy antiquaire di di ñi yor ay quad di di di louer des quads aux touristes ñi nga xamante ni ñooy ñooy ñooy defar ñooy defar euh, gaal yi pour mun a wut xorom ñooñu ñëpp lañu waxtaanal ba ñoom ñu jàpp date ni nañu dem tel date def conférence de presse ci place boobu wane ko mën ko mën ko filme wane ko pour wan ni kat euh, vraiment bu ñu seetaanee lii raam ci ñag bi bu day dina taal ñag bi taal suñu kër yi. Mhm. loolu moo tax ñu def loolu. Mhm. Euh, waa bu na ba docteur ñu ne bi nga fay dugg tàgg woo leen ñoom ñu ne sa euh, 30 hectares yi ñuy wax entre Lagrose ñu ne am na ñu naan danga ne ñàkk moo ko moo ko moom ñoom ñu ne seen biir euh, dëkk la nekk seen euh, délimitation yi 30 hectares yooyu noonu wala su ñuy wax sax foofu la nekk yow da nga ñëw nga ne ñàgg la nekk kenn waru kaa laal am na projet bu fa bu fa nekk. non projet bi moom ñoom ñoo ko wax projet Papis Diop la ñoom ñooy waxi projet man waxuma projet dama ni.

askanu ñàgg askanu bënnoo ba askanu Tivaouane Peulh ñoo bokk intérêt xam nga lu ñu bëgg Lac Rose delluwaat Rose am xorom euh, touristes yi di fi ñëw environnement bi baax ba koom-koom ji dellu si ci réew mi ndax ñun loolu la bëgg lu ëpp junniy nit la doon liggéey foofu loolu la ñu bëgg junni nit yooyu dëkk liggéey at Lac Rose te junniy nit yooyu ñenn ñi ñàgg lañ dëkk ñenn ñi bënoo ba lañ dëkk ñenn ñi fu nekk lañ dëkk te bënoo ba xam nga nii du du dëkk bu ndaw dënnoo ba du dëkk bu ndaw xam nga booy xool da ngay wax dënnoo bu dëkk bu mag a mag la léegi ndax euh, ñi fa nekkoon ñi doon wax noonu dangay gis ni waa kër maam naar lañ waaye da ngay xam ni kër Baay Balla am na ba noob hmm. kër maam naar am na fa kër Assane ñaari Assane yi ñu fa euh, Déni Géej mu nga fa hmm. euh, Déni Géej mu nga kër kër Marème Mbeng mu nga fa hmm. kër Yuusu mu nga fa loolu yëpp dalay lay wax nii la bënoo fa du place bu tuuti boo xamante ni juróomi nit dañuy ñëw wax ni euh, lii moo am walla lii moo am non munu nekk loolu nañu wax ni ñun ñoo bokk commune ñàgg ak bënoo ba benn dëkk la duñu ko jéem a xajale ci ay wax mm-hmm. loolu loolu sax dafa mënul nekk mm-hmm. ñàgg ak bënoo ba benn ba lañ nañu fexe ba ñun suñu intérêt ñun ñëpp ñu sàmm ko bañ fexe nag ba intérêt benn waay nekk maire en plus jox ay nit dara rek ñu ñëw ci télé bi di wax ay wax yoo xamante ni ñoom ñooñu xam nañu li ñuy wax dara amu ci ndax euh, docteur Wade amul mètre ci benn amul mètre ci suuf si wutul mètre foofu amu ko fa kon mm. boog loolu yomb na ñun li ñu bëgg mooy Lac Rose dellu na mu nekkoon te loolu mën naa nekk ndax Rose bi xam nañ ni mën naa ñëwaat waaye nag nañu fexe ba nag protéger protéger environnement bi environnement boobu nag nan lañ koy protéger mooy reboiser defaat ay filaw mu mu gën a màgg rafetal mu lépp baax su ko defee tey jii euh, bu ñu toogee at ak genn wall <laughs> ñu amaat li ñu amoon démb ak barka démb <laughs> loolu dama ciy répété dama koy répété waat vraiment tey jii autorité yi nga xamante ni ñoo yor Sénégal bëgg nañu Sénégal bëgg nañoo defar Sénégal askanu commune Tivaouane Peulh ñàgg soxla nañu Lac dellu Lac Rose mm-hmm. te mën nañ ci jàppale am nañu moyen bi bëgg-bëgg bi am na fi léegi nag euh, wax ji yegg ci ñoom ñu waxtaan ci ba lépp mun a euh, tax vraiment littoral bi Papis Diop jóge fa filao bi ñuy dindi mu xam ni mënul nekk euh, askan wi dafa bëgg Lac nekk espace de vie boo xamante ni day indi koom-koom day indi li nga xamante ni moom la askan wi soxla. <laughs> Mhm. mais du doon xaalis yu benn waaye rek mu wut ay milliards am def ci poosam dem yoonam. Mhm. tey docteur euh, euh, comme euh, ni ñu ko waxee pour ñu mën a tëj chapitre bi nga xam ne mooy dina wa rek tey magu ki nga xam ne tey dégg nañ chef de village bi nu nu mu waxee ñëw na gisu Mali Mali ñaaga depuis lors bi bi coow la amee est-ce que am nga ñoo xam ne ñoo nañ rencontré la pour xam situation bi carrément pour pour des solutions mais aussi tamit contacté nga ñi nga xam ne mooy population yi dina ba wax leen carrément yow lan mooy lan moo la woon yóbbuwoon tey foofu na mais ñu di dëkk ay dëkk la dul jeex dama leen am na kër Baye Bala kër Maam Naar kër Assane ñaari kër Assane ñu jógoon wax aussi est-ce que wax nga ñooñu ñooñu mooy mooy waa kër Maam Naar ñoo doon wax mais boo gisee ni ñu waxee du projet lañu leen wax lu tax ñoom duñ nangoo wax ci projet boobu projet bi mooy projet maire projet maire boobu nag la ñu bëgg mu bañ a am ñun loolu moo mooy dong mooy suñu projet projet maire bi dañu ni maire bi dafa bëgg a defa jël foofu trente hectare jël ko jaay def ci poosam ñu ni ñun de loolu ànduñu ci ñoom nag lu tax waxuñu ci loolu loolu loolu moo war a nekk xam nga nag wax nit ki day def li yomb na waaye nag euh, boo xoolee yëf yi ba mu dugg ba ci biir di nga gis ni bënnoo ba day seen intérêt mooy Lac Rose nekkaat Rose am xorom am rose am tourisme wa ñag lolu moy ci intérêt wa communauté en peuple yëpp lolu moy ci intérêt man lolu ci lolu lay dox wéssuma lolu dama bëgg dal commune bi soppeku ni ñuy souf ci di def li leen neex lolu mu soppeku commune bi nek commune bo xamanteni day am kom kom bu fi juddo te lolu lag Rose mën na ci apporter ak le tourisme ak le sel docteur projet li nga wax tey Lac Rose euh, ku ko wax xam nga ni tey euh, euh, deuxième pôle urbain bi fa la fa la war a dem gis nga ko gisoon nañ li nga xam ne tey mooy président Macky Sall tegoon tegoon projet boobu noonu Lac Rose yaa ko wax sànq da ngeen bëgg mu retrouver waat tey lac bi ak nu mu nu mu meloon mu nekk benn site touristique bi nga xam ne tey ñëpp dañ fi mën a mën a daje si combat la pour tamit yeneen projet yëpp ginnaaw projet maire waaw mais man loolu laa mës wax de dama mës a wax ni eh, pôle urbain du Lac day baaxul ci Lac Rose man loolu laa mës wax mësuma suma changé eh, wax fu nekk wax naa ko ni pôle urbain du Lac Rose pour man baaxul ndax ndax tey jii bu ñu nee pôle urbain lii am jam ñaajo boo ko xoolee ba nga yàgg da ngay gis nii ah ay ay dañuy tabax urbanisme la à te Lac Rose soxlawul loolu Lac dafa soxla ñu revivre de truc naturel la loolu mooy mooy mooy vrai soubassement mooy mu nekk lac boo xamante ni day rose ba pare autour de lui mu nekk une verdure un environnement boo xam ne ñëpp dañ fay bëgg a sénégalais bee ku sénégalais boo fi ñëwee am kontaan pour ñëw Lac Rose loolu mooy vrai projet du Lac Rose waaye du ñëw tabax ay tabax ay étage ay non loolu du pour man gëw ma ni loolu moo war a projet la Rose moo tax pôle urbain dama mos a wax ni man day anduma ci anduma ci te gis naa ni du njariñu Lac Rose loolu laa wax loolu nag euh, dama gën a confirmer rek bis bu ma Lac tan rencontré woon le ministre du tourisme le ministre de l'environnement dinaa ci gën a gën a xuus ba wane ni lii mu warul nekk warul nekk ndax baaxul ci lac bi baaxul sax ci suñu environnement entre le lac et la mer à peu près c'est un kilomètre un kilomètre cinq cents fexe nañu ba jëmbat filao ba bloqué suuf si ngir yàlla nañ ñu fexe nag ba loolu ñu bañ ko dindi waaye buñ ko dindee l'agro jeex na. Euh, euh, docteur un nouveau gouvernement mu am ñu am euh, ministre du tourisme bu bees am ministre de l'urbanisme bu bees comme ni ñu ko waxee yaa ngi invité pour ñu pour ñu ñëw fii est-ce commencé nga def démarche yi.

li ñuy waxtaan ci ci Lac ndax loolu mooy mën a tax suba ak ginnaaw suba bu ñu nee bu ñuy ñëwee fii am ay correspondant yu mën a waxtaan ak ñoom euh, te nag waxtaan boo xamante ni njariñu Sénégal dong lay doon. Mhm. du doon njariñu benn nit. Mhm. man man doxuma ci njariñu nit njariñu Sénégal moo moo tax may wax njariñu askanu commune Tivaouane Peulh-Niaga bi nga xamante ni Lac mooy le poumon économique. Mhm. ndax fii bay moo fi nekkoon. waaye gis nga ni bay presque jeex na fi. lu fi des mooy tourisme. tourisme boobu nag mun nañ ko soqali mën nañoo fexe ba lag bi nekk ak rose loolu mën na nekk mën nañ fexe aussi ba préserver environnement bi wër lac rose ba nga xamante ni hôtel yi fi nekk ñu mën a accueillir des touristes accueillir des euh, ñoo xamante ni ay sénégalais yu fi bëgg a ñëw noppalu waaye bu boobaa dañuy am environnement sain environnement boo xam ne day yokk wér-gu-yaram ak environnement boo xamante ni ku fi ñëw kontaan loolu nag mën nañ koo def su ñu amee volonté bi politique ak volonté économique mhm. loolu dafa am solo kooku ndax sax damay wax ni tout de suite sax loolu daf may tax ma wax ni la ah nawet bi de bu ñu yàlla mayee jàmm ñeenti weer a ci des mhm. gaa ñi defaroon nañu bassin de rétention Lac Rose dañoo bëgg na gouvernement bii bees bii fexe ba ñu de bañ a am Lac nawet bi di ñëw bañ nekk bassin de rétention parce que nag loolu su amee ça veut dire effort yi ñuy def depuis daaw di ŋàcc lag bi dañ koy anéantir dañ koy nasaxal. Mhm. kon boog il faut autorités yi gis ñu rapidement ci mois de avril bi wala mais wala balaa juin ñu defar bassin de rétention en amont du lac. Mhm. ce qui fait que bu ndoxu taw ñëwee jógee Tëngéej wala mu jóge Kër Massar wala Kounoune. mën a dem ci bassin boobu bañ ñëw ci lag bi hmm. parce que bu ñëwee ci lag bi moom ça veut ñun ñaari at yi yëpp li ñu doon liggéey di wàññi ndoxu lag bi vraiment day day nasax te bu boobaa espoir bi ñu amoon ci lag bi yëpp mën nañu wax ni day dem yoon. Hmm. Hmm. docteur wàllum suuf ci 30 wala une minute sax euh, commune Tivaouane Peulh Niaga soo fa jëlee sànq yaa ko ñoo ko doon waxtaanee mooy euh, entre Niaga bu Nëba nga cité woon Déni Géej mais au tamit euh, coowal suuf. ci Tivaouane Peulh côté littoral bi toujours nga gis ne tey euh, président de la république ñu bëri sax nañ ne dafa déclassé forêt bi nga xam ne tey soo jëlee euh, fële na leen mën nañ ne gàddaay euh, Malika jëm Tivaouane Peulh yegg si fii nii ci ci ñaaga tey Tivaouane Peulh bokk si commune Tivaouane Peulh ñaaga coowal suuf boobu même même situation bi amaat fa autorité yu bees yi directeur ki nga xam ne mooy ministre de l'urbanisme tey lan moo war a nekk taxawaayam ci ci wàll boobu nag le nouveau ah man sama yéene la mën wax xam nga man. est-ce que aussi tamit combat bo xam tamit da nga porter comme ni nga porter. bu ñag sama yéene la mën am yéene bi moy eh, Sénégal ñu delloo askan wi li mom man yéene bobu la am yéene bobu nak du ci souf kese ci lépp la tay ji nañ dangu ni eh, eh, le nouveau gouvernement le le son excellent le président de la république amna yene yéene boobu man yéene bobu amna ko Sénégal. nit ñi ñu delloo askan wi li ñu li ñu jël ci jëlu jëlin boo xamante ni du yoon loolu nag mën nga ci wax suuf si mais mun nga ci wax lépp lu mu doon lépp looy wax Sénégal tey jii eh, ñoo xamante ni am na ko te askan wi waroon ci gis boppam te gisu ci boppam nañu fexe mu delloo si suuf soosu nag bu fekkente ni tey jii dañoo topp ni littoral bi déclassifié nañu lépp man de loolu loolu dina ma jaaxal loolu daal dama gis ni daal loolu bu ñu ko defee ça veut que ku def loolu buggul Sénégal ndax littoral bi boo génnee filao yëpp li ngay wax rek mooy di nga pousser suuf si mu avancé bu baax di nga pousser aussi géej gi di avancé te it nag géej gi avancé bu ñu gisee tsunami yi am ci yeneen réew yi nga xam ni géej buy avancé dara mënu ko téye mhm. kon sore que moo gën nga ñëw dëkk ci tefes gi mhm. loolu nag dañu koy wax rek pour alerte waaye nag euh, nañu jàpp ni li gën vraiment mooy li askan wi moom daal ñu bàyyil ko mhm. man daal ci loolu laay mën a wax mhm. euh, ñëpp muy suuf ak leneen mhm. euh, ci wàllum suuf donc mbokk téléspectateurs yi di rappeler rek ñoo ngi ci entretien exclusif bi nga xam ne tey dañoo ñëwaat di waxtaan ak ki nga xam ne mooy docteur Wade docteur Ahmad Wade nekk fii nii ci ci ñàgg mu dalal ñu encore wala mu dalalaat ñu sax si bërëbu liggéeyu kaayam comme niñ ko waxee rek première partie bi ñu doon wax ci wàllum euh, foncier bi nga xam ne am na diggante bu nëba ak euh, coow yi fa juboon yëpp ngeen dégg leeral yum ci yum ci andi euh, docteur deuxième point bi gannaaw bi nga xam biñ fiy jóg bay élection présidentielle la woon tey président bi nga xam ne son excellence Basiru Diomaye Jahar Fay mom installé installé nañ ko le 2 euh, avril uh, vayu uh, li nga xamné tay moy élection moy safula vayu li nga xamné tay moy euh, défilé 4 avril uh, moy fête indépendance défilé bobu sa amul ngeen gagné élection yoy non dégon nañ kaddu yi nga yëkëti ya won par rapport ak lool tay ngeen jité réewum Sénégal à l'occurrence Basiru Diomaye Jahar Fay premier ministre bon installé ko le deux boobu sax muy ki nga son compagnon de toujours ou bien son mentor même si on peut l'appeler comme ça Ousmane Sonko le 5 Ousmane Sonko teg gouvernement ñu gis ci gouvernement 25 cinq euh, ministres cinq secrétaires euh, yi nga andi andi secrétaire d'état 5 secrétaires d'état taxawaay boobu avant ñuy ñëw ci rencontre bi nga xam ne am ngeen ko démb ak ak ki nga xam ne tey mooy seen président coalition taxawaayu Bassirou Diomaye jaxaar fay le président de la République ak gouvernement bi nga xam ne monsieur Ousmane Sonko moo ko moo ko jiite. vingt cinq ministres cinq secrétaires lan lay wundu ba man de dama kontaan man man nag wax dëgg damay ci nit ñi am yaakaar laa bokk. ndax euh, vraiment gis nañu lépp son excellence Euh, jam ñaajo mu def discours boo xamante ni vraiment wane na ni dal na am na xel am na yéene mu ñëwaat la veille 4 avril euh, defaat beneen discours bu gën a dalalaat suñu xel ci li ñu bëgg ci Sénégal euh, wane aussi un gouvernement de rupture ndax dañu am habitude Sénégal da gouvernement bo xamanteni do xam sax nit ñi ñan la dañuy bare ba do xam lan la waye tay ji tek gouvernement bo c'est un gouvernement de 25 30 personnes 25 ministres et 5 secrétaires d'état 30 personnes avec vraiment des, nouvelles têtes C'est un gouvernement aussi de jeunes lolu aussi renforcé renforcé l'idée parce que son excellence 44 ans le def gouvernement bo xamanteni vraiment, je l'appelle un gouvernement de rupture. 25, 30, la jeunesse bien représentée. Mais docteur, est-ce que c'est continuité depuis, 2000, depuis, l'an 2000 À vous m'avez 26 minutes la Macky Sall en 2012 premier gouvernement Abdoulaye 25 euh, ministres cette fois-ci Ousmane 25 ministres est-ce que vous continué, c'est juste pour pouvoir démarrer. Je man gëw man vraiment. Euh, man dama que suivre euh, Ousmane Sonko quand même ci discours am damaa gis ni vraiment am constance constance dans li def pendant au moins trois ans yoo xam man suivre na ko constance bi ma gis ci mom moom laa gis ni euh, vraiment gëm limu wax ni vraiment dañoo bëgg soppi Sénégal mhm. comme comme gëm ko nak damay def man li lépp li mu war a mën a def ba nga xamante ni soppi boobu dina ci bokk mhm. te bi bi ñu recevoir démb vraiment wanewaat nañu loolu mhm. toog nañu lu mat ñaari wax toog ñu teg mhm. waxtaan ci Sénégal waxtaan ci li ñu bëgg kon war na ni vraiment euh, coalition bi bëgg na coalition bi continuer coalition bi nekk coalition de buy liggéeyal Sénégal nit ku nekk fàtte boppam liggéeyal Sénégal loolu aussi vraiment lu lu lu lu lu jara xool la que suba ak ginnaaw suba foo nekk nga ni man de fii ma nekk man sama bopp taxuma fee toog waaye Sénégal moom fi tax a toog ba nga xamante ni di nga def loo man ak loo mënul ba askanu Sénégal gis nii ñun de vraiment gàcci ngaalaama son excellence le président Bassu Diomaye Jahar mm-hmm. mais également félicitations à son premier ministre euh, Ousmane Sonko mm-hmm. ñun mmh. vraiment man de yene boobu laa am ci ci pour position pour li mënal Sénégal ma def mm-hmm. ba nga xamante ni réussite bu ñëw ñu am dama ciy bokk tax may docteur euh, ci nga xam le suis euh, mooy euh, ministère de ñu ministre de l'intérieur je Jean-Baptiste euh, Tin, ministre des forces armées Jean-Baptiste Rex, fa homme de terrain la le euh, général mars 2023. Euh, mars 2023 fonction remplacer ministre des forces armées ministre de la justice aussi. mu nekk euh, ki nga xam ne mooy euh, Ngom suma suma suma juumul mu nekk ay homme de homme de justice koo xam ne tey mënoon nañ ne sax coowal euh, Ousmane Sonko Adji Sarr pratiquement ñoom ñett ñëpp mën nañ leen citer ñi nga xam ne tey peut-être mën nañ ne ay protégé woon moment boobu noonu Ousmane Sonko la woon nga gis leen ci gouverne bi est que nekkul li ñu doon naan gars yi ci biir ci biir état wu Sénégal amoon na top moment yooyu noonu est-ce que nekkul ce comme euh, des ministres. man gisee wu ma noonu man dama gis ni euh, affaire boobu nga tudd léegi euh, caaxaan la woon rek. Mhm. caaxaan la woon ñi ñi ñi nangu ñi nangul woon caaxaan yi dañ leen a kese la. nañ nangu man yi mhm. ñi nangul woon caaxaan yi la ñu mhm. xam nga bu fekkente ni nag danga nga ni da bëgg a rendi nit koo xamante ni yàlla rendiwu ko. paaka bi du ñëw. loolu kese la euh, ñoom dañoo amoon yéene ren di Ousmane loolu la ñu amoon yéene waaye nag yàlla nanguwul doon loolu donc moo taxoon ñi nga xamante ni dañu gis ni ñii dëng te kese la que histoire bu ñu créer de toute pièce la moo tax ñooñu gis ni ñoom loolu lañ gis ñu lànk ni ñu dey kenn du ñu boole ci complot bo bu ma bokk ci complot nag ñu dàq ma ma nangu ni kat yaa yor réew mi nga dàq ma waaye nangu naa ko dem kon boog tey jii ñooñu ñu leen dellu see dañuy wax ni ah ñii de njub moo tax ñu indi indi leen mhm. man man lecture boobu laay am njub moo tax ñu indi leen dañoo lankoon ni du ñu bokk ci complot boobu mhm. loolu moo tax day man ah dama ci dama ci kontaan léegi nag joxaat leen wóolu leen nag xool leen parce que nag wóolu yëpp liggéey moom il faut ñu contrôler nit ñi mhm. liggéey suñ la contrôler wul doo doo doo doo mën a def li nga bëgg a def

mu nekk euh, ministre de l' enseignement supérieur et de la recherche et de l' moom euh, docteur moom mi nga xam ne mooy docteur Abdourahmane Diouf ah, tey euh, ci commune bi pratiquement mën nañ ne sax ci département wu Rufisque wàllum njàng bu kawee bi bëriwu fi taxawaay gis nañ pratiquement université sax bu ñu bu ñu tax wax amu fi est-ce que tamit c'est l'occasion de pouvoir mettre benn université bi nga xam ne tey même su fekkee benn université boo xam ne dañ koy dañ koy def ci bi nga xam ne mooy département wu Rufisque man man man man du ma question bi noonu man damay wax ni Sénégal njàng mi njàng mi yëpp la ji lépp amul amul secteur boo mënul wax boo waxee primaire classe de quatre-vingts classe euh, gos moo fa am hmm. ci ñàgg gi boo demee Tivaouane Peulh même chose la boo demee collège ba même chose la boo demee lycée ba même chose la boo demee université même chose la donc loolu njàngam Sénégal moom tey ji référence dootul référence ci école publique

boo jëlee benn classe nga def fa juróom-ñetti fukki xale jëfa benn maître nan la koy jàngale mhm. jàngale amul foofu mhm. maître bi day day def rek li mu man mhm. ñi mën a suivre suivre ñi mën la suivre ñu ñu dem seen yoon moo tax man la vraiment euh, ce serait bien bu ñu mënoon am université dans le département de de Rufisque euh, mais euh, mais Diamniadio déjà département Rufisque la am na université kay du du du euh, université Mokhtar Mbow mu ngi ci département Rufisque mm-hmm. waaye boo xoolee aussi université Sénégal yëpp mm-hmm. ni euh, muy université Cheikh ante Diop université Saint-Louis wala Ziguinchor wala Thiès on a leen même problème les même problème mm-hmm. ça veut dire que njàng Sénégal dafa laaj ñu toogaat ci xool lan la ñu bëgg former ban contenu la ñuy jox njàngale mi ba xamee njàngale moomu mun a jariñ Sénégal yi ndax loolu aussi beneen souci la tey jii bare Sénégal ku jàng ba pare du mën a def dara boo ko waxee loo mën a def da lay wax xaw kon vraiment ni du du question refuse rek mais Sénégal yëpp la ñu war euh, l'enseignement du préscolaire à l'université pour que le Sénégalais formé mën a servir Sénégal servir boppam voilà docteur euh, ci wàllum euh, gouvernement boobu noonu allié yi pratiquement ki nga xam ne tey mooy euh, docteur Abdourahmane Diouf lañ ci lañ ci gis ki nga xam ne tey mooy Cheikh Tidiane Dieye ñi nga xam ne fës nañ fësin bu bu baax ay allié lañ ñoo doon xaar ñeneen tey est-ce tamit comme on dit waxuñu sax gâteau la mais tamit ñu si séddale mooy waa Pastef ñu si ëppale. waaw mais xam nga man <laughs> man Sénégal daal yëf yi du gâteau tàggatoo sédd amul lu ñuy séddoo du lu ñuy séddoo xam lu ñu bëgg nit ñu soppi Sénégal fanweeri nit nga solagum gouvernement du fanweeri nit yéen tamit il faut pas aussi ñu vraiment yóbbu contradiction yoo xam ne amul contradiction d'abord da ngay teg groupe groupe boobu ñu tegaat beneen groupe group boobu tegaat beneen noonu la gouvernement di doxee tey jii fal nga fanweeri nit waaye jàppal ni dinañ falaat ñeneen falaat ñeneen falaat ñeneen ba xamante ni compétence yi nga xamante ni yépp ñu ngi ci coalition bi jiite Sénégal mhm. coalition boobu ñooñu dugal seen loxo ci ni ñuy ni ñuy suqalee Sénégal mhm. man de noonu laa ko gisee mhm. man daal aw ma ci frustration aw ma ci yàkkamti lu ma ci am mooy dinañu fexe ba compétence yi am ci coalition bi yépp ku nekk sa loxo dugal ci dara pour que Sénégal askanu Sénégal vraiment gis ni amuñu njax ñu mbetteel li ñu fal ñii waaye dañuy kontaan ba fal leen falaat leen falaat leen loolu daal man mooy sama projet loolu ci noonu lay noonu lay xalaat. Euh, docteur euh, wàllum allié ñu ñëwaat rek démb euh, ki nga xam ne tey mooy le président de la république. mu jiite woon la li nga xam ne mooy euh, coalition Diomaye euh, président muy Bassirou Diomaye Faye démb mu dalal leen euh, fële na la ca Kimpat Palace la moo nekkoon ordre jour ak waxtaan bi. saafoonteeg ñun xam nga damay wax ni son excellence vraiment dafa wàcc boppam ba wan ni robb bi ñu ko tegal robbu président de la république waaye dafa am sas ñëpp ñu àndoon moom aussi am sas vraiment loolu am na sas bu diis waaye sas boobu aussi ñii àndoon moom dañ cee bokk loolu la wane mooy wane ni coalition bii de bëgg naa mu continuer dem na sax ba wax ni ah, comme ñu ngi ko tuddoon woon Diomaye président nañ ko tuddi dindi tur wi tuddi ko neneen defal ko pro règlement intérieur ko defee lépp ñu xam ni ñun ñii ñoo jiite nanu jéem doxal ba Sénégal kontaan ci ñun loolu moo tax man de. est-ce que tu doon li ñu doon wax ci Benno Bokk Yaakaar on a gagné ensemble on gouverne ensemble aussi. coalition bi coalition bi dafa am ay compétences yoo xamante ni dañoo jiital Sénégal a jiital seen bopp Benno Bokk Yaakaar man boobu nga tudd léegi nga ni c'était la famille et les amis Li nag vraiment ñun waxuñu loolu. Euh, président aussi démb wax na beneen baat boo xamante ni vraiment aussi dañ koy day wane ni rek ni vraiment xam na liñ ko yen mu ni am nañu siiw am ñoo xam ne waaye ñëpp am nañ compétence compétence yooyu nag la ñu xam ci nit ñi nga xamante ni ñoo ñoo bokk ci combat bi ba nga gagné compétence yëpp ñu ñu jéem leen utiliser pour Sénégal pour Sénégal jëm kanam mm-hmm. lii mooy mooy mooy mooy projet projet bii nga xamante ni tey jii

c'est pas du privé vraiment on était plus de 100 euh, et quelques personnes ça veut dire que vraiment euh, c'était vraiment waxtaan n'inga ñi nga prison n'ingi ngi doon xeex nga génn ñu ànd ak ba nga ni réunion bi loolu la ancré waat ni ñun de solidarité bu solidarité boo xamante ni ku nekk day fàtte boppam solidarité boo xamante ni askanu Sénégal moo la tax a jóg solidarité boo xamante ni dañu am résultat résultat boo xamante askanu Sénégal daf ciy yow euh, tey euh, gannaaw euh, loolu yëpp gouvernement bi taxaw na. pratiquement eh, wala sax ministre yi taxaw lañ mais ministère ñep xam nañ nu muy nu muy bindo dina bëri ay conseiller technique dina bëri ay ño xamne ay ay nit yi nga xamne ñuy liggéey ak ministre euh sax poste yi nga xamne da fay da dess ñu gis nañ nit ki tamit ñep ni ngay liggéey da ngay liggéey ñu xam na da ngay wolu docteur tay suñ la woyé tay pour le liggéey ak état facilement dang ciy dem ba non mais yow tamit nag xam nga euh, la musique léegi comme ni ma la waxoon léegi rek euh, orchestre bi bu ñu ko jiitu ci ci place bi pour seetaan te jii euh, ñun ànd nañu. mais aussi tamit am nga xaar am nga yéene ak président Diomaye Faye dama fu ma Sénégal woo ba ñu maa demal liggéeyal Sénégal fu ma Sénégal woo kay amul lu ñu ci discuter man su ma Sénégal woowee loo xamante ni xam naa ne mun naa ko. xamna ni muna andi sama sama expertise muna andi sama xam xam muna andi sama xalaat ci lolu kon lolu dama kay sawara def lolu kay amul lu ñuy waxtaan amul lu ñuy discuter fuma senegal soxla bu boba damay dama ci sawar ndax man ma ngi liggéey may ma ngi liggéeyal sénégal fii ma nekk ndax am na structure yu ma créé yoo xamante ni doomu sénégal ci yëngatu kon man maa ngi liggéeyal sénégal kon boog bu ma Sénégal soxlaa feneen nit euh, du ma mën a bañ loolu damay dem ci sawar bu fekkee liñ ma laaj loolu mën naa ko ndax loolu am naa ci expertise am naa ci compétence loolu moom wax dëgg euh, dama doon dinaa damay neex ma liggéeyal sama réew surtout nag ci nga ki nga xamante ni tey jii vraiment yaakaar naa ni bokk naa ci ñiy def ñii ñiy ñax ñi sonn ba mu falu bon ma woon kay tey déedéet du ma hésité damay damay dem ci loolu loolu ñuy discuter àllaj mhm. voilà peut-être euh, ñu def ben ben kii rek benn point avant ñuy euh, pare ci wala jeexal waxtaan bi docteur septembre il se peut que ñu jëmaat ci ay élection wala avant at bi di jeex rek ñu demaat ci ay élection su ma nee ñu demaat ci docteur mooy assemblée nationale bi nga xam Euh, yaakaar naa ne sax ñëpp a ngi ruumandaat au mois de septembre dañu am deux ans dañ koy euh, dissoudre mooy que dañ koy euh, tas tey ñu jëmaat ci élection coalition yi président yaa ngi koy wax sànq yéen a xool sax noonu soppee tur bi ñu jëmaat si assemblée nationale war a dem ci élection li nga xam ne tey mooy législative suñu tasee assemblée bi taxawaay bi day gën a day day day gën a am jëmm ginnaaw bi ngeen conquérir pouvoir ba pare mu des tey li nga xam ne mooy pouvoir bi. waaw mais j'appelle ni yow quand même tey assemblée nationale benn bokk yaakaar moo fa majoritaire loolu nangu nga ko def nañ élection léegi nag son excellence le président Bassirou sous su euh, su bëggee am politique boo impulsé par son gouvernement ah il faut mu am une majorité à l'assemblée loolu dañu koy euh, ñu mën a donc dañu dañu tas assemblée ci loolu man ci lu d'accord la ñu tas assemblée bi dem élection législative

kenti amna am na compétence bi am na xam xam am na doole docteur eh, jërëjëf eh, ci ci waxtaan bi ci dalal bu ñu di ñu dalal ñu bàyyi rek nga tàggatoo ak eh, mbokku téléspectateurs yi ñu ñu seetaan ba jërëjëf man damay kontaan rek di waxtaan ak yéen saa su nekk nañ def ni dal, nañ koy def souvent weer bu nekk ñu daje waxtaan ci suñu réew seen activité ñu ciy waxtaan loolu day tax aussi askan wi xam ñoom lan la def parce que man mën naa am xalaat boo xamante ni eh, gouvernement bi wax na ko ma ñëw tas ko ci ci waykatu tey xabaar yi comme yéen kon boog vraiment nañ koy def souvent yu leer daje waxtaan léegi kontaan ci aussi di ci ñi koy déglu ndax euh, commune Tivaouane Peulh Niaga comme man fii laa dëkk

boobu feebar mën na faju lekk dootu fi nekk problème njàng dootu fi nekk problème hmm. jërë ngeen jëf voilà jërëjëf euh, docteur euh, di la sant aussi di la gërëm ci taxawaay bi nga am aussi ci ci nangu bi nga nangu saa su nekk euh, di waxtaan ak ñun Euh, tey sa biir bureau nga ñu dalal gis ngeen sax euh, décor bi euh, aussi di gërëm sa personnel bi nga xam ne moom nga moom nga àndal fii yëpp ci accueil bi aussi tamit seen taxawaay bu ñu am di gërëm yéen ñi nga xam ne mooy mbokk téléspectateurs yéen ñi nga xam ne dañuy safoo saa su nekk di ñu seetaan à travers TPTV di jaare ci Net Vision di nuyu ki nga xam ne mooy le directeur Sayer di ko nuyu bu baax mais aussi tamit di ñu fàtte Bokar Uh, di uh, gërëm rek ki nga xam ne tey moom lay àndal uh, saa su nekk ci entretien exclusive yi muy nekk suñu directeur des programmes runa moom mooy dj runa arona saw mu nekk taxawaay bu muy am ci nga xam ne saa su nekk gis nañ ko ci tv tv aussi tamit du ñu fàtte directeur bi pate amar mais pdg bi muy cham pap téléspectateurs yi di jox rendez-vous rek euh, ci beneen euh, euh, ci beneen invité bi nga xam ne mooy entretien exclusif ci biir TP TV di leen wax na rek jàmm ak jàmm yàlla nañu yàlla defal jàmm.